Euh, aw jor mi ngi koy wax léegi hmm. ñoom autorité li boo leen dégg dafa mel ni xale yi hmm. euh, du ay ñàkk wala yooyu moo leen tax a dem mais dañu bëgg voyager rek comme euh, benn touriste bi dem di wuti ji ay connaissances yu diverses wala dem di xoole ji yenn paysage daal xam nga li awa wax sànq que politique rek la ñu nekk di def hmm. parce que Antoine Diome mi ñuy wax ba muy yëkkati discours boobu c'était en réponse à Ousmane Sonko. dañu ne am na trois cent jeunes sénégalais yu disparaître Ousmane Sonko génne benn poste. di wax jeunes yi ne bu leen daw bu leen génn Sénégal nañ fi des ñàkkante ko. moom muy wane ne Sénégal ay yooyu ñàkkante taxu euh, ñàkk taxu leen a génn. am na si ñoo xamante ni tamit pour découvrir d'autres horizons moo leen tax a génn. mais Pape Matar Sénégal fii boo fi tegoon ay avion ne ku bëgg a génn Sénégal génnal. yaakaar naa ne jeunes yi fii des du bari de. <laughs> guerre Ukraine bi rek amoon na ay Sénégalais yi doon bindu ma ni ko guerre Ukraine amoon na ay Sénégalais yi doon bindu ma ko non xam nga xam nga lan moo gën a garaaw. képp képpa gi. université Cheikh Anta bi ñëw taf euh, affiche fac lettre. di wax ku bëgg a euh, comment dire nekk euh, soldat américain militaire américain gars yi dañuy recruter. fac lettre laa la wax de. Mhm. ñuy ñëw foofu fa la ñuy. fa fa la ñuy former suñ ndaw yi. fa la ñuy recruter. dernièrement maa ngi gis également euh, ñu ne benn annonce euh, gouvernement italien day wër quatre cent mille jeunes yoo xam ne dañ leen bëgg a yóbbu leen ci tool yi. Mhm. dañ leen bëgg a enrôler quatre cent mille yóbbu leen yóbbu tool yi ñu dem foofu. ñii di wuti ay. Euh, tamaate ñii di wuti ay orange ñii di wuti leneen ak leneen. léegi ñun agriculture bi fii koo fi woo ne ko agriculture Sénégal mun a yow moom da nga koo bañ. man ba ma jógee Maroc ñoo ne damay def ferme dañ ne ma yow moom xam naa Maroc da nga faa dofe <laughs> parce que ñoom jàpp nañu ne. jàpp nañ ne agriculture moom kundoo la koy def. <laughs> non mais parce que image bi ñu am ci agriculture. image bi ñu am ci agriculture la ab ab ab fas ngay jiital wala ab ab mbaam. yor sa machine topp ci ginnaaw. agriculture boobu xam nga ne fii ba allah yow mi diini doo ci génn. doo ci génn agriculture boobu bi sunu maam yi daan def yor sa uw ak sa illeer dem di bay loolu da ngay baye baye baye bay ba sonn boo ci amee loo dundee la cay des soo ko jaayee doo ci jënd ñetti xar mhm. bu ñu demee ba nga xamante ni wax nañ ne agriculture dafa war a nekk euh, comment dire levier boo xam ne day permettre jeunes yi ñu toog fii c'est parce que agriculture bu ñu développé la mhm. mais pas na ko sunu maam yaak sunu maamaati maam ya daan defee ba léegi nii agriculture boo xamante ni ay plantation lay doon ay hectares hectares nga mettre à la disposition des agriculteurs ay tracteurs ak yeneen ak yeneen mais man kenn nee na ma fi mhm. agricu euh, euh, tracteurs yi fii régime bi indi dernièrement ba président Macky Sall photo ak moom def ak moom lépp nee na ma yu si bëri ña nga Mauritanie ah oui wóor na yàlla nee na ma yu ci bari ña nga Mauritanie parce que ñoom da ci am bu ñuy wàcc fii benn euh, euh, kii yu ñu leen di defal benn genre GPS yoo xamante nii fu machine bi nekk ci euh, dëkk bi dañ koy xam mhm. nee yu bari Mauritanie la ñu te loolu bu bu amee du du loo xamante ni lu bees la ak Guyana aussi même chose nañ doon wax. ñu ngi nekkoon Mauritanie tax de Wade bari na ay dëkk yooyu dem seen machine yi ci àll ba kenn utilisé te pourtant Guyana ak moo taxoon yooyu la machine ñëw Sénégal. ma ma ngoog mais ah. c'était de très bon plan. xam nga ñun lan mooy suñu problème jëfee. képp képpaa gi. dañ lay jëndal tegal la ko après ñu ut moyen buñ ko détourner. Mhm. les ayants droit ñu ci jot mukk mukk. mais c'est comme le product. tu vois des mhm. euh, des de des cultivateurs du dimanche. ñu jël jox leen suñu ay tracteur jox leen suñu ay lépp ñoom ñu rentabiliser pa dugal ci àll bi dugal ci ñaay yi tey jii tu vois les ministres les directeurs ñoo ñu ngay gis seen ay tool ñu yore ay hectares. Pape Matar jël ñu leen ko bayal jox leen machine yi ñu waroon jox suñu baykat yi ñu jox leen ko ñoom ñu ciy bay ñii di bay ay pulloox di ci am xaalis te pulloox ñu mënoon ko bay ci biir réew mi. am na ñu si bëri sax bayuñu dañ koy def benn ferme. di ci dawal mm, seen fas ni mel ferme ba dangam sa yow xam nga ne <laughs> bay 50 hectares banja dégg nañ ko fi. <laughs> te suñu ay baykat waroon ko fee jël. dem daa ma ne ay façon gis. tourisme la fay def. képp képp képp. gis nga billaahi wala ça fait très mal. tubaab bu ñoom ñu dundal askan wi. Eh, ñoom dañuy dund ci kaw askan wi. te waroon dundal askan wi tey jii. parce que lu ñu nekk titre bu ñu dégg lu ñu mun ti am askan wee leen ko jox seen ñàkk la. ñàkku askan wi la ñuy dundee moo tax billaahi loo ci gis chaque jour dinga gis ci seen kër yi ñu am loo xamante ne duñ ko mën a ñaan fenn ndax ñàkk doomu aadama yi la ñuy dundee chaque jour ñu gis ci seen kër yi seen doom yi mel-melokaan boo xamante ne neexu leen wala ñoom ci seen bopp ñu am jàngoro yu leen tëral loo xam ne neexu leen parce que ñàkku baadoole yi la ñuy jël di ko dundee surtout surtout ñàkku baykat mm-hmm. mais mais li gën a li gën a ambera maam biram ba mooy da ngay ñëw ci réew moo xam ne li ñu am ci ci ci soleil mm-hmm. jant bi li muy li muy daanaka bariwul réew yi mu koy tàng nga xam ne loolu mën naa nekk électricité bu doy électricité boobu mm-hmm. kenn defu ko rek pour ñu ñu euh, ñu ne président Macky Sall électrifié na tel village mm-hmm. ñaari lampe nga fay tàkk mm-hmm. mais électricité dafa war a servir lu baree baree bari kon ne fi nekk di jooy woyofal comme ni ñu euh, euh, loolu dafa war man pour man ci dëkk àll yi dafa war lu bari bari dama koy wax benn jour sama benn mbokk baykat dafa réew ba sonn ka ma ne ko tey su fekkoon ne dama nekk man jeune sénégalais gis un jeune cultivateur sénégal sénégalais. mu ne mu yor toolam di ko bay. à coté ci dëkk ba mu dëkk mu tabax fa ab terrasse am. am courant ca biir. mën a am frigidaire mën a am clim mën a am ventilo mën a am leneen ak leneen ak kooku su ko beneen baykat gisee dina ko ñee pour toog yaa ngi dégg te yooyu pourtant c'est des choses basiques yoo xam ne ci réew moo xam ne jant baa nga fay tàkk ndox bari fa lu mën a nekk la tey jii man pour man électricité bii ñu wax ci ci ci ci réewu taax yi la waroon gën a jafe. Mhm. que ci àll bi. tout soleil bi mi ngi fa. mais mais dëkk boo xam ne yow euh, comme di maam Biram et bien avant 1960 ba léegi. Mhm. soo fa demee guddi lampe tàkku fa. dëgg dëgg lampe pétrole ak sondeel lañ fay taal ba léegi suñu waxee ñu naan électrifié nañ tel village te boo boo déggee nag Paa Mokhtar. ñu naan la électrifié nañ tel village affaire yooyu gis nga boo laajtee ñu fa dëkk. Mhm. dañ naan la par exemple benn 60 villages war na faa nekk. Mhm. ñu ne la électrifié nañ fa électrifié nañ fa ñaar wala ñett. Mhm. wala poto courant bi romb na wala poto courant bi romb na leen. Mhm. yooyu ngay dégg. mais ñun commencé wuñu woon di jaay courant wala. fan. waaw waxoon nañ ko fi de. yow courant coupé wul léegi fii. ah <laughs> wul léegi fii. <laughs> waaw dama déggoon rek ne ñun dañoo bëri le bay jaay. képp képp képp bay jaay Guinée. looloo tax may laajte ndax euh, courant boobu dafa kii dafa ngelaw li da koy yóbbu benn côté wala. Guinée koo nga tuddoo awa moog Sénégal ñoo ëpp nattu ci àdduna. xam nga man sax à un moment donné mu riche. dama yaakaar ne Sénégal yàlla dañoo mere mere mere mere ba moo tax mu envoyé ñu Macky Sall. <laughs> non c'est vrai <laughs> parce que parce que quelque part ñun yi ñu am yëpp tey dara jëriñu ñu ji man moo ma yéem ko Moustapha nu mu ko waxee noonu ci soleil bi. noonu la nekkee ci sunu fleuve yi. Mm-hmm. trois fleuve bu am Matar. te yow autosuffisance alimentaire munoo koo am. nga am phosphate fii ne gàññi. mënulaa servir. Mm-hmm. am dëkk boo xam ne ku gas am or. waaw nga am côte sept cent cinquante kilomètres. Mm-hmm. yabooy di te nit ñi. wallaahi. képp képp ya booy di tël nit ñi te nga am sept cent cinquante kilomètres de côte mhm. de Cap Skirring à Saint-Louis nit ñi mën nañ faa napp mhm. euh, maa ngi dégg tey ci benn reportage ñu ne sénégalais particularité bi mu am mooy plage yi gaal mun naa jóge fu ne dem suñ plage yi waaw fu gaal neex départ fu fu fu leen neex gaal mun na faa départ plage yëpp amu yoo xam ne dafa accidenté comme ay Maroc ak yooyu nga xam ne ay roche fay nekk te boo defee comparaison bi Maroc bi nga xamante ne da nga fay dem ñu lay jaay ay kilo soble ay deux cent ay kilo pomme de terre deux cent ñoom ci ay atlas la nekk maanaam amuñu terrain euh, vague nii mm-hmm. te terrain plat Sénégal ñun yàlla may ñu maam Birame daje naa ak benn sénégalais Maroc en 2009 xamatu ma fu mu nekk. Jean ma ne ko mais sa waay yow doo doo doo ñibbi Sénégal mu ne xalaatu ma ko sax maa ngi tax ma fii booy dox euh, wax dara. Euh, naa ko fi. dernière ko fi bëgg raisin xam. wax naa ko fi benn émission. Mhm. Sénégal nga fayeeku fi 500000 man ma fayeeku 200000 Maroc moom ma ko gënal. Mhm. ma fayeeku Maroc 200000. moo ma gënal ma fayeeku cinq cent mille Sénégal sa cinq cent mille yi Sénégal du yegg weer bu dee alors que deux cent mille yee mun nga koo téye ba économiser pourquoi parce que dundu baa yomb gisoo bi may njëkk dem Maroc dama lay nettali damaa romb maire boobu ñooñ di yore puus-puus yi uh-huh. ma gis fraise mu bëri mm-hmm. ma laajte mu yomb trop ma convertir ko en CFA mu yomb ma jënd ci mbuus bu bëri boo xamante ne balaa ma doon ñibbi da doon nëpp <laughs> xam nga lu gën a tey garaaw xam nga moom muy wax fraise. loolu affaire njaayeen te loolu. je suis persuadé que sama réew. te xam nga li leneen li ci gën a yéeme Pape Matar. mooy nee naa la bu ma amee 500000. Sénégal dinaa am ay problème pour dund contrairement ak 200000 yi ma mën a am Maroc. boo fa nekk ak sa leer ne dund gu lekk gu baax ngay jënd. day lekk walaay da lay leer ne lekk gu baax ngay jënd mais Sénégal fii ci bu jën yoo xamante ni balaa ñu koo togg dañoo jël diwlin gi teg ko ci naaj bi ba ba ba ba mu ruy ba mu ruy ah booy déglu bi rek génn Sénégal rek ngay bëgg. <laughs> non mais bu jeex. Mm. c'est vrai de da ngay yéeg saa gis bidon bidon diwlin bi bi génn ko teg ci naaj bi. Petersen ah. bee boo fa demee am na ruq boo xamante ne nii produit périmé rek lañ fay jaay. di changer date yi. ak buntu port. am na yoo xam ne duñ changé sax date bi noonu la ñu koy bàyyi. ci Sénégal. parce que dañ lay gëmloo ne su périmé tu as encore huit un mois mm. wala deux mois pour lekk ko. yow bu dañuy ñëw di la ko jaay nga koy jënd yow sénégalais. de coût de la vie. pourtant on est émergent de. waaw <laughs> émergent ñu <laughs> eh <laughs> yow xam nga bu nekkee.